dinaa leen wax jigéen bi ñu war a jël comme soxna ban signe la war a am ban comportement la war a am jigéen jooju mooy jigéen ji nga xam ni day bëgg baayam lool fonk ko respecté ko du bëgg dara lu ko metti lu ko metti metti na ko lu baayam lu ko neex neex na ko su ne ko toogal mu toog lu mu ko tere mu bàyyi kooku mooy signe bi gën ci boo bëggee tànn jabar ah néew ma nag ne jigéen ñi bëgg seen yaay dañoo bon déet déet ma ko de waaye dadi jigéen bu fonkee baayam bëgg ko respecté ko bëggul dara lu ko metti kooku fu mu dem góor gu ko yor jabar daf koy xool comme baay du manqué dara du xiif du rafle du mar te lu mu am bokk kook moom